سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي جلوتي مبوكي طالبي رواتنا مبوكي انترنت نيغا خمانتيني ينيني سيفول اترافير Ndiassane TV comme ni ngeen ko gisee tey ñoo ngi ci Ndiassane ci guddi Cheikh Abou Mouhamed Kounta fii ci résidence bi di kër Cheikh al Bekaay Bekaay ibnu Cheikh Bekaay ibnu Cheikh Abou Mouhamed Kounta yal na yàlla guddal fanam mbokk yi tey ñu taxaw ak ki nga xamante ne moo di El Hadji bu Bou yaakaar naa kenn dootu leen ko présenté yéen ko xamal seen bopp mimal ko seen bopp damay wax ne El Hadji Cheikh Bou Diop nitu ñëpp la fa tabaarakallaahu euh, tonton Cheikh bu ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di waa Ndiassane TV ak mboolem internet yi ak képp ku koy seetaan à travers internet bi. macha allah jërëjëf euh, ci kàddu nuyoo yi am solo yooyu nga xamante ni njëkk nga ko El Hadj Cheikh bu ginnaaw bi nga xamante ni dugg nañ ci guddi Cheikh bu Mouhamed Kounta euh, jóge nañ ci cérémonie officielle bi euh, jaar nañ ci préparation yi jaar nañ ci kaamil bi ñu jóge ci cérémonie officielle bi nga def kàddu yi am solo kilifa yëkkati fa kàddu yi am solo lan nga ñu mën a résumer ci loolu nga xamante ni jëlee nañ ko fa. waaw yëg nii rek tey la nisfu Sha'ban mooy genn wàllu weeru Sha'ban tey jii la taxwiilul xibla amoon jullit yi bu ñu daan julli dañuy jublu Jérusalem yonent yàlla Muhammad di wax ci xolom su ma sañoon ñu wëlbati kab xibla bi mu jublu Màkka bis bii la julli ñaari rakka Jibril ñëw wàcc ni ko sa borom nee na nga jublu nag Màkka fa walli wajhaka shatral masjidil haram bisu tey la amoon mais bisu tey la sama trondoo aj gis nga noonu mu wëlbatiyee xibla bi mu jëm màkk ñëpp jublu fa noonu la yàlla tàggatale nit ak jinne cheikh bu Mohamed fa tabarakallahu bis bii nag nekk bis boo xamante ni mooy sunu bis ndax ki tax ñun ñu jot ci yonent bi ci bis bii la aj wuy ji boroomam mu nekk bis boo xam te taalibe yi dangay ngay gis engagement biñ ci am ak yëg bi yëg-yëg biñ ci am xoolal ñi ma wër ñoom ñooy jamaatul islamiyatul mutamassikatu bi tariqatil xaadiriya mu neex ma lool ngeen tudd Ndiassane TV xoolal ni mu mel donc jàngale bi dafa ñëw fekk si jàngale borom Ndiassane lii di unité africaine mbaa intégration africaine moo ko njëkk a def ci réew mi soo ñëwee Ndiassane di nga fa fekk waaso bu nekk xeet yëpp di nga fa fekk xeet bu nekk te loolu borom Ndiassane di cee liggéey loolu nag moo waral nag itte la ñu ñaan yàlla nañ ko yàlla sàmmal di ñaan yàlla na yàlla barkeel yéen it seen télévision bi ci daraja yoon sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee julli jot na dañuy julli mais dinaa def ak yéen dara ci kanam incha allahu rabbi jërë ngeen jëf jërëjëf El Hadj Cheikh